maa leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam di commencé nuyu kilifa yu baax yi toog ñoom Serigne Assane Mbacké ñoom Mara Niass l'honorable maire Mayakor Diouf di ñaan nag yàlla yàlla ma may xel mu mel ne xelam Cheikh Bara Ndiaye ngir ma mën a wax wax doo xam ne mën ngeen koo dégg bu fekkee ne da am bâtiment bu màggat di ko toj waaye doo woy menuisier doo woy tailleur da ngay wow bi nga xam mu ñëw tojal la ko moo tax comme maa xam système bi Ousmane ne ma doyee gaa yu ànd nga nekk le maçon buy toj ma nekk l'architecte buy ñëw tabax lu bees Ousmane Sonko bi ñu ko dafee teg ko doole mu nekk ci kaso bi daf ne ma Habib dama bëgg yow yaa sama yaay ay damooj ngeen uufal ma xale yi madame la présidente Les jeux sont déjà faits. Amadouba est déjà vaincu. Macky Sall été depuis longtemps. Ousmane Sonko a remporté la victoire. Bassirou Diomaye Faye a gagné. Habib a gagné. Le projet va s'installer parce que c'est un projet d'espérance, un projet d'espoir pour la jeunesse sénégalaise. on vous l'a dit tout yàkkamti Ousmane ngi ñëw Ousmane a ngi ñëw Ousmane a ngi ñëw Ousmane ngi ñëw Ousmane a ngi ñëw Ousmane a ngi ñëw Ousmane a ngi ñëw merci merci